ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dala nag jàmm ci xibaar yéen i kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak la tribune yéen i kaay gi duñu xam ne lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko parrainage gag yu mel juróom-benn fan ci weeru mai daan ci amal nag ay waxtaan ci réewum Sénégal yéen i kaay gi duñu xam ne ay waxtaan yu nar am solo yoo xam ne rek nar naa ëmb lu bëri fekk jamono jooje libération yéen i kaay yi duñu xamal jamono ji nag waa CEDEAO daan nañuy artuwaat ki nga xam ne rek moom moo di njiitu réew bi Macky Sall ci lu jëm ci wàllu arrêté Ousmane Gomba yéen i kaay gi duñu xamale maanaam daal gannaaw daal lu jëm ci wàllu ko parrainage gi bañu ko leen ko aaye jamono ji nag waa CEDEAO maanaam daal gàntal nañu njiitu réew bi Macky Sall lu jëm ci wàllu arrêté Ousmane Gomba gi ñoom nag lañu ñuy sàkk moo di maanaam daal ku bëgg a dox moo xam centre ville baak fu la neex mën ngaa dox yéene kaay xamal ne jamono ji kay njiitu mi Macky Sall mi ngi ci leneen l'info yéene kaay du xamal ne gannaaw parrainage ga jamono ji nag lu jëm ci wàllug arrêté Ousmane Ngom bu fekk jamono jooju Seydi ne nag mbir mi nag lu ñu war lijjanti la mu leer nañ njiitu mi Macky Sall bu fekkee ne nag la mu digge maanaam daal jamonoy wàdd lam fa jige woon ba may ma njiitu réew mi Macky Sall dafa tas yaakaaru askanu Sénégal rawatina nag lu jëm ci ndaw ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ca Pikine Kër Massar loolee tax man ma dem seeti leen ndax bari lu bëri loo xam ne diggoon leen ko ba léegi forage dalee xadeen ba ci université jamono ji nag arène nationale leen may maanaam daal loolu di wane ne respecté leen tegu leen fenn ci jamono joj la tribune yéen moom itam di ñu xamal waa CNRA jamono ji yi tamit def revue de presse kaay gi du xamal ne moom kay dañoo jàpp ne ay attaque ak songe la koy defee tey nag loolee yoon may ko ko ndax jamono ji maire wuteeg loolu nag gis-gisu gaan ngay daal fexe ba néewal leen doole loolee nag ci ay pexem la ne ñeenti fan ci weeru avril la war a feete li nga xam ne rek moom moo di 4 avril gi waaye nag dafa mel ni la wax indépendance ak li ñu am wute na lool vox populi yéene kaay du kaay du ñu xamal maanaam daal juróom-ñaari xale yu góor ñu ñoo violé benn xale bu jigéen boo xam ne woykat la ay atam toll ci ñaar fukk benn yéenekaay gi duñu xamale mbir ma nag ma ngay xew ca keroog ba Sénégal qualifié coupe du monde yéenekaay gi duñu xamale mbir moomee nekk dañu ko ci yoon ñu daal di koy nëpp nëppal bàyyi xale yu na nag naqar gu yaayu xale bu jigéen ba am tax na mbir ma mu yóbbuwaat ko ci kanamu yoon daanele ko l'info yéenekaay mi ñu xamal jamono ji lu jëm ci wàllu ko jafe-jafe maanaam ay boddi konte ci wàllu xeet ak yu ni ay boddi konte ci wàllu xeet ak yu ni mel loolu xamale gannaaw nag kàddu yi Serif Ibrahima Diallo yi nga xam ne rek yëkkati na ko jëmale ko ci Walf yi nag Penda Ba yëkkati woon na kàddu yu ni mel te it mujjul fenn jamono ji nag ñu ne mbir la moo xam ne buñ ci waxul mën naa indi yeneen jafe-jafe ci réewum Sénégal loolu de moom dëgg la ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar bi mënoon na maa fekk Sédhiou jiree ji ñu lekk ci verre blanc yi bu baax verre blanc yi mooy blanc bi mooy ñànk tàng vert bi mooy soos bu ñu paree teg suñu ataay waaye nag jamono jaxasoo na waxtaan ci suufu bali fetal moom du neex waaye Sédhiou jàpp si mbani balant foofu dara dàq ko El Hadji Ousseynou Ndiaye ak El Hadji Ousseynou